tey nag ñu fas yéene waxtaan ak askan bi li jëm ci wàllu sibiru dañoo jógee nii ci formation bi nga xam ne moom lañ doon defal acteurs communautaires yi maanaam relais yi ngir lan tàggat leen ci li jëm ci campagne bi nga xam ne moom la ñuy def ngir xeex sibiru man moom ñu koy wax CPS campagne boobu nag li ko tax a jóg mooy comme que dañoo xam ne nawet ku ne nawet wax siburu moo tax bu nawet bi jubasitee ñuy xool ñuy xool xale yi nga xam ne ñoo am ñetti at ñetti ñetti ñetti weer ba fukki at nga xam ne siburu da leen di faral di lor di leen sonal ñu ne léegi bon dañuy def bu jógee ñu dugg ci kër yi gone yooyee ñu wutal leen ay garab garab yooyu ñu leen di jox danañ koy jox ci benn fan ñaari fan ñetti fan su ko defee xale bi dañ koy mën a aar ci weeru lëmm su ko defee suñ ko defee ci benn weer aar ko ci weer weneen weer ñu tollanti ko aar ko ci weer weneen weer ñu ko aar ci weer bu defee ñetti weer yooyu ñu génne nawet bi suñu génnee nawet bi siwir bi wàññeeku bon ab jumtukaay la boo xam ne bokk na ci yeneen jumtukaay yoo xam ne dañ koy jël ngir jamonoy nawet ñi mën di aar xale yu ndaw yi ci siburu terewut nag xale yi dañoo war a continuer di ci sànk yi njaboot gépp at mépp guddi yëpp ba nag dañuy ñaan askan bi ñu xam ne ni sànk yi baaxee noonu la doom yi baaxee ngir aar xale yi ci siburu bon nañu ñaan askan bi nañu yaatal relais yi nga xam ne ñoo ñëw ci kër yi nañ leen yaatal xam ne gone yi nga xam ne ñoo am ñetti weer ba fukki at lañ soxla ngir aar leen ci sibbiru bi amaana nag léegi-léegi am gone yi ko naan ñu ne seen biir day métti wala ñu ne dañuy wàccu waaye loolu dara loolu ay effet la effet yooyu su xale yi lekkee bu suur laata ñu koy jël amaana yooyu du am te yooyu amee tamit suñu meen ci kër docteur des na leen faj gratuitement te duñ ci fay dara loolu daal lañ doon waxtaan naan askan bi lañ yóbbante ci askan bi ngir nañ ñu dimbale yaatal xale yi ngir yéen yi nga xam ne moom lañ am ci xale yi ba àll leen ñu am ci ndam noonu la yeneen pànn jógee ngir am na jamono fi doon fi pompe daara yi pompe boo xam ne dañuy nandal dëkkuwaay yi ba nga xam ne weñ wu ci dal yow wu dal dee noonu tamit dañuy xëyee siburu ba di jox ay sànke ngir nañu tëdd siburu loolu tamit dañuy def ba jigéenu wérut ñi suñ ñëwee ci kër ci ci hôpital ñett doom yooyu ñu leen di jox yëpp pour aar sibiru la nga xam ne bon sibiru xeex bi fànn yi bari na waaye bii na da ci fànn boo xam ne tamit bu am solo la ci xale yi bon ñu ngi ñaan ñu ngi tàllal ñëpp loxo na ci ñëpp jàpp ñiy gàntal xëy na ñàkk xam rek moo tax waaye doom yi ñuy joxe doom bi bu ma sa yàgg la ay Flaawakin ku ne xam na ko moom la daan fajee sibiru te moo ak lii lenn képp la ay Niwaakin lépp xam nañ ko te loolu ak lii lenn képp la bon doom yi lu fi yàgg la du lore lu baax la te luy jëriñ la. su fekkee da ngaa bëgg sam réew ëllëg mu taxaw am avenir bu baax faw ndaw ñi danañ wér ndax ci biir wér googu ci la ñuy mën a jàngee njàng mu mucc ayib waaye ci la seenu yaram di mën a dëgëree ba liñ war a liggéeyal réew mi effort yi ñu war a defar réew mi def ko kon day mel ni lii eh, CPS bi dafa jëm ci ndaw ñi te mooy fexe ba. siburu bi nga xam ne lu lu leen mën a lor la ñu fexe ba gàllankoor ko loolu nag jàpp naa ne képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi rawatina nga nekk Touba rawatina euh, gox bii de xaayira war nga cee jàpp bu baax a baax ndax ñi koy def effort yi ñu ci def yépp du caagi ne ñoom seen njariñul bopp képp la waaye njariñul askan wi la kon loolu ñépp leen ci war a jàppale waaye nag rawatina ñi nga xam ne yàlla dafa dogal ñoom ku leen tudd tudd gone te mooy ñi nga xam ne dañoo yor ay daara alquran di jàngal di jàngale ndax dëkk bii di Touba moom daanaka mën ngaa wax ne léppi daara la ba tax na sax daanaka dañuy wax ne école amu fi kon dana jaadu lool ñu soññ suñu mbokk yi nga xam ne ñoom dañoo yor ay gone te lii ñi ko tax a jug docteur Seck wax na ko léegi mooy gone yu ndaw yi ñu am ñetti weer ba fukki at te daara joo dem ñi nga fay fekk xale yi am juróomi at jàpp fukki at jëm kaw kon nañ ci jàppalanteeg ñoom bu baax a baax ndax ku ne xam ne ne sibbiru bu ko xale bi defee ba mu àgg fenn fi da nga ciy financé loo xam ne dana jéggi dayo te bu fekkee ne yàlla dogal na ñu prévenir loolu dana ci def tawfiix bu baax te dañuy wax ne dirhamu wiqaayatin xayrun min qintaari ilaaj maanaam benn dërëm boo xam ne da nga koo jël financé ko ci sag wér-gi-yaram moo gën nga jël ay centaine de millions di ko fi financé sag wér-gi-yaram te du tax nga gaaw wér loolu nag mooy lii ndax lii duñ ci fay dara duñ ci financé dara te yàlla mën nañu defal tawféex sibru sunu borom mën nañu cee aar te bu fekkee ne dangay yor ay donga nag sax yaw yaa ci rawati ndax bu dee ku yor ak njabootam kese mën naa am bu sibru amee ñaari xale la ci am wala ñett waaye ku yor ay dong moom da ngay yor lu ma téeméeri dong lu mat fukk wala ñaar fukk tëddandoo ca te su boobaa faw nga yóbbu leen kër doktoor te su boobaa faw nga financé ca bu yàlla dogalee nag lii ñu prévenir loolu dana ci am solo lool te man xam naa ci dara ndax euh, daaw jég bi ñu ko defee wax dëgg yàlla gis nañ ne si buru yi wàññeeku woon na lool ci daara yi bu yàggu rek maa ngi koy wax ay mbokk naan leen euh, doom yi man gëm naa ne lu baax a baax la ndax ñi nga xam ne jëloon nañ ko te respecté ko amal na leen njariñ lool kon daal maa ngi soññu sama bopp di soññ mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal liggéey bii di jàng jàngale ñu jàppale ñi nga xam ne ñooy ñëw ci daara yi e, di joxe doom yi ñu jàppalante ci ak ñoom ndax day mel ni doom yi dañ koy joxe ñetti fan danañ ko joxe joxewaat ko joxewaat ko loolu e, léegi léegoo léegi nag am ñooñ loolu moo leen di xaw a jaaxal ba sax dañ naan bu ñu jëlee benn yoon duñ jëlaat waaye ngir mu am njariñ ngir dosage bi mën a jariñ yaram bi li ko war a jariñ faw da ngay topp ñetti yëpp ba mat sëkk ndax loolu mooy tax mu am njariñ